la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya rab te yàlla yaay buur di baraam la ilaha illallah لنا يا رسول الله لا إله إلا الله يا رب asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu sell bu màgg bu tedd bu nu jëlee ci kilifa gu sell gi toog di sëriñ Cheikh Fatim Seck Ridial nuyoo bi nag jëm ci mboolem mbokki julli ji ak mbokki taalibe yi mbokk réew mi ak bitim réew li mu ëmb lépp waaye di ci jiital nag ay kilifaam sëriñ Mountakha Mbacké waaye muy nuyu tey siyaare ah, sëriñ Moustapha Mbacké Mouhamed mi buntam ci sëriñ Touba ah, di nuyu bu baax tey siyaare waajuram sëriñ Cheikh Fental Seck Ridial mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Ridial ak njabootu maam Ridial gépp waaye jëw jëwriñam sëriñ Ridial Seck Gëm Bamba mi nga xam ne moom lay àndal di liggéeyal sëriñ Touba ah, di kilifaam di xaritam moom it dañ koy nuyu te di ko siyaare bu baax a baax ci turam ak euh, tur mboolem njabootu maam Cheikh Dial gépp nag euh, bu waxee njabootu maam Cheikh Dial gépp nag wax na sëriñ Cheikh Fental Dial waaye njabootu sëriñ Cheikh Diop Mourou Massamba sëriñ Amdi Seck Dial euh, ne ca bopp ba ak la mu ëmb lépp ak mboolem njabootu maanaam sëriñ Cheikh Fatim gépp fu fi mën a ne sëriñ Cheikh Fatim mooy wax ci seen tur mm, di fas yéene woote bis bi nga xam ne maanaam way juram sëriñ Cheikh Fatim la koy defal fële ca Touba Këri Dial euh, féeteeg héliport bi ko xamul euh, boo dikkee ba tolloo fa kër fa ñuy wax kër Ablaye Wade rek penc mooma mooy pencum Touba Këri Dial fa lay fas yéenee woote bis bi di ci woo kilifaam yooyu muy lim yëpp nag di ci sàkku seen ñaan euh, di siyaare bu baax tey ñaan nag mboole mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ko man nga ñëw teew ca bis boobee li nga xam ne ñoom la bokkul sëriñ bi muy sëriñ ci njiitul sëriñ Mbacke Gueye ngàcc mi nga xam ne moo jiite mboolem seex yi Daaru Xudoos yëpp euh, bayewul kenn ci bu waxee loolu rek bàyyiwul kenn ci seex si nga xam ne ñoom la bokkal pas-pas ci Daaru Xudoos waaye ñi nga xam ne nii ñooy diaspora bi ak murit saadix yi di dongee laxasaa yi ak ñi nga xam ne ñooy ay bayal xadim li ñu sotti di xam ne ca bokk ak ñoom Daaru Xudoos gépp ak mboolem kër yi si kër yi Seex Muusaa Al Karim yi ñi ñi leen fi nekkal di seeni xalifa ak njaboot ga mu ëmb lépp Serigne Cheikh Fatim mi ngi leen di fàttali bis boobu di ci sàkku seen ñaan te di ci woo fële ca Touba Kër Dial bis bi nag mi ngi war a tombeek euh, bis bi weeru kori wi feeñee bis boobu lay doon. bu fekkee ci seenu bu njëkk la feeñ bu bis bis bu mu feeñee bu dellusee lay doon bu dee seenu bu mujj noonu waaye bis bi weeru feeñee rek bu dellusee ci la koy woote waaye fokk nag weeru feeñ ba noppi ñu a xam bis ba waaye bis bi weeru feeñee rek mu ci mën a doon na ñëpp jàpp ne mooy bis woo ñëpp euh, mu fas fa yéene nag woo ñëpp ngir màggal way juróom woowu di sëriñ Cheikh Fatim Ridial mi nga xam ne moo doon jàmbaari maam Cheikh Ridial ji nga xam ne moo ko njëkk a wuutu te matoon ko sëkk nag doon jàmbaar joo xam ne la ko waroon lépp ci sëriñ Ridial def ko def na ko la ko waroon lépp ci sëriñ Tuubaa def na ko waaye la ko waroon ci njaboot gi lépp def na ko ak la ko waroon ci ay rakam na ko liggéey ba wàcc sëriñ Cheikh Fatim xéwal gam doon liggéey ba wàcc la yéene mbokk julli yi ak mbokk taalibe yëpp fas yéene ko bokk ak ñoom ak mboolem njabootu maam Ridial gépp Cheikh Ridial Seck gëm Bamba mi ngi lancé appel bépp zone noire a nekk mi ngi lay soñ ci bis bii bis bii daal nee na moom amul lu dul bis bii funkut lu dul bis bii jàpput lu dul bis bokk na ci bisi boppam bisi xolam yoo xam ne képp koy déggal wala nga nga nga nga di ko diglu bis moom na nga ko fonk le bu jotee dégg ngeen niñ ci wax na ñëpp maase dem màggale ko noonu ba bis jàll loolu ngeen jot ci ndigal sëñ bi loolu laay tëjee samay kàddu jërëjëf aousu billahi min sheytaan rajim wa kulli man lam yuhibbu ni min arrijaali wa nisa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, ñu ngi nuyu mbokk yi ñu seetaan yëpp di leen siyaare di leen fàttali bis bu am solo euh, ni ko Serigne Sam waxee rek euh, muy bisub Serigne Cheikh Fatim ki njëkk a nekk xalifa Mame Ridial 1950 ba 1965 liggéey fi liggéey bu am solo ci taalibe yi liggéey fi liggéey bu am solo ci kër gi liggéey fi liggéey bu am solo ci njaboot gi yëpp kooku nag la ñuy fàttaliku ca bis gënewul morom ja lu dul la ca xew sëriñ bi nag di woo ñëpp nag. képp ku ñuy dégg suñ kàddu rek wala ñuy seetaan ak foo mën a nekk si àdduna rek sëñ ñu la koy yëgal ca di la ci wow di wax ne nag nam ko daan defee rek la koy defee lañ ca jiital muy euh, salaatu ala nabi ak alxuraanul karim ak xasida yi sëriñ Tuubaa yi ak la noonu la ko bëggee noonu la ñuy xëyee bu ñu xëyee ci loolu la ñuy dal ba waxtu xewlu jot bu ñu xewloo ba noppi itam ñu continuer nekk ci euh, xasida yi ak drusu ak itam siyaarente ak itam di fàttaliku jëmm ju baax ju ju jàmbaare jooju euh, bu waxtu bu wëccëg jotee ñu xewlu joxe bernde yi suñ bernde ba noppi itam dañuy continuer programme bi ba euh, takkusaani suuf sëñ bi door a def ñaan kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ciy woo xarit yi seex si ni ko sëriñ Samba di ci woo wëllëre yi di ci woo taalibe yi di ci woo bokk yi bàyyiwul kenn. waa di wax rek ci turu organisateurs yi rek sama jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi. ku mel ni Baye Ngagne Niang ak Baye ak soxna nday Diegane ak ku mel ni Pape Ndaw ak soxna bindu Seck ñoom ñi nga xam ne ñoo yor waañ wi ñoom ñoo ma yónni rek ci taalibe yi pour ma wax leen ab soññee waaw soññee bi nag moom mooy fépp fu waay nekk rek nga xam ne bis bi nam daan amee rek nu ko raw lañ bëgg mu amee nii nañ ci daan jàppe tamit nu ko raw lañ bëgg ñu jàppee ko nii. buñ ko ritee ba pare fu waay mën a nekk rek na dëgmal bis bi te fas yéene ñëw ci liggéey bi def ko gën ngaa rafetee liggéey loo jàppoon nga bàyyi ko ñëw tàmbali ci liggéey bi ñu nekk ci ba sëñ ba ba liggéey bi jeex ñu ñëw tàllal suñu loxo sëñ bi mu ñaanal ñu yeewi ñu fas yéene xaar beneen ndigal kenn ku nekk la nga ci defoon daaw nga faxee góor def lu kawe lu ëpp la nga ci defoon daaw te fas yéene tee fas lépp loo bëgg ndax liggéey sëñ moo amut ak pay bismillahi rahmaani rahim barke maam Cheikh Ridial bokk yi tedd yi ñu ngi di nuyu ñu ngi leen di ziara waaye di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi suñu kilifa gi nga xam ne moo toog ci jataay bi jëmal bi sëriñ Cheikh Fatim ànd ak rakkam yu tedd yi ak taalibe yi ñu ñëw ngir dundal bis bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Fatim dëdd woon euh, sëriñ Cheikh Fatim mii di ci fàttaliku juróom ànd ko ak yi euh, li ci suñu kàddu nag li ciy jiitu mooy comme ñun la jox lenn ci wàllu organisateur te xëy na am na ci loolu Eh, suñu man-man néew na ci suñuy pas-pas néew na ci waaye ñu ànd ko bokk taalibe yoo xam ne feggoon nañ ak ñoom ñu di ñu dimbale ci waxtu wi waxtu wépp di ñu dimbale itam ci seen jëf ak seen yéene kenn ku ne di ci jàppee ci côté bu ne ak ni nga mënee eh, loola itam sëñ bi da ci wax ne mi ngi ciy woo ñi nga xam ne ñoom la feggool kër sëñ Rijaal eh, di ay dëkkandoo yu yàgg lu ci mel ne ñenn ci waa Caawen bi nee na mi ngi leen ci woo lu mel ni itam waa jàmm gën sëriñ bi mu ngi leen ci woo daaru tansil moom itam sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal dëkk ñu ay dëkkandoom yu rafet yoo xam ne yàgg na te dara ñaawul lu mel ni waa Mbàkke Bawol itam sëriñ bi mi ngi leen ci woo ak tund woowu mbooleem koo xamante ne rek yaañ ka ba ci boofeel bàyyiwut kenn képp koo xam ne rek xëy na dégg nga kàddu gi na nga xam ne sëriñ bi woo na la képp ku ko déggal sa mbokkum taalibe itam na nga xam ne la la ca waral mooy sëñ bi ci sa mbokkum taalibe nga xamal ko ni ko sëriñ bi bokk naa yow bis bi mi ngi la ci woo mi ngi sàkku itam sa teewaay boo mënta ñëw it mi ngi ñaan say ñaan matale uh, àgg ci jëmm ji nga xam ne moom lay fàttaliku. la ci des nag mooy saa su ne daana rafet saa su ne daana mat saa su ne xolam dana sedd tey la ci ëpp yaakaar itam waaw tey la ëpp yaakaar ci ni su ci tollee dana mel ni mu daan mel ndax suñu borom dogal na sëñ Rijaal ñi ko booleel muy ay kàngam yoo xam ni xay na jëmm yi bariwul waaye pas-pas yi xol ya lamboo na di benn jëf ji di benn jikko ji di benn seen yéene la muy néew néew xàmmeewu ko ak yeneen yéene yoo xamante ni bari na ba tol nen ndaxte wax na ni saa su wootee dina leen gis saa su laajee di leen ko jox saa su yónnee dinañ daw te itam danañ làmb ay bëgg-bëggam ba xam fu mu toll ñu di ca nekk loola itam nee na mi ngi leen ci ameel ay cant ak ngërëm yoo xamante ni mi ngi ñaan maam Cheikh Ridial mi nga xam ne mooy séddale yàlla bu kenn ëppale ab cër ci jëmm yooyu nga xam ne moom la ko Serigne Ridial booleel ndax seen pas-pas naw na ko lool mbokk yi nga xam ne itam ñuy ñëw di bokki la xarab jóge ci ay euh, gox yoo xam ne fasantikoo la Serigne bi nee na kenn ku ne sooy ñëw yéen a ji ngay toujours mi ngi koy gis mi ngi koy rafetlu mi ngi ñaan itam euh, Serigne Ridial mi nga xam ne moo tax nga ciy jëf yàlla na la ko delloo ba soxol sedd saa su ne te itam mi ngi ñaan yàlla na fi fekk ñëpp kenn ku ne itam tawat yoo xam ne suñ borom dogal na ko ci yow muy ngant loo xam ne euh, buñ ci àggee xëy na mën laa tee ñëw sëriñ bi mi ngi ñaan yàlla bu mu dal benn taalibe. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di bal ñëpp ak tey bal ñëpp ak di sant rek bu baax a baax a baax sëñ Sam mi ak mboolem rakk mi mu àndal sëñ Cheikh Ahmed ak sëñ Cheikh ànd ak njaboot yëpp sëñ Cheikh Ahmed ñëpp kenn ku ne sa taxawaay ak si yéene ci bis bi xam nañ ko baax baax lii ba léegi ji sëñ Sam xam na ko ba waral mu doxe ci nii loolu lépp xam ne yéene yoo ab ci sa dundal sa bisu maam rek ko waral kon yàlla ni suñu borom fay yéen ñëpp aw yiw suñu ñaan it ñëpp nu ba bis ba euh, mel nañ ko bëggee ci kawe njort te bañ a am benn ndok bañ a am benn rëq-rëq àgg leet te suñu borom nangul na ko jotale ko ci kiñ koy ñu koy defal ñoo ngi ci fasaal it mboolem njabootu sëñ Rijaal yëpp nag muy rakkam fa nekk ndool di bokk ñëpp ñëpp suñu borom bu ko soobee ci yiwoom fu ñu fay fàggu ci mën a jotale ñëpp kenn ku ne te jariñ ci ñu mboolem ñi ko doon taxawu ñoo ngi sant it sadda jërë ngeen jëf yooyu itam seen taxawaay rafet na ndax man li ma la nawee mooy kër gi mm-hmm. kóllëre gi ni ko fonke waaw ndax saa suñu fi dara xewee boo ñëwee bu buñ la fi fekkutut bala nga fee jógee nga fekk nu fi kon boole sa boole gi nga boole sa bopp ci kër sëñ gi xam nañ ko kon ñu itam ñëpp nu waa kër sëñ gi nañ ko jàpp te jàppale ko ak nga nga àndal te xam ni wax dëgg yàlla bis baa ngi noonu sëñ bi nee bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn bis bi daal bisub Serigne Touba kin koy defal jàmbaar joo xam si na liggéeyal na Serigne Touba Touba ba Serigne Touba ngërëm ko kon nag sëñ Cheikh nee na képp ku fa ñëw sëñ Bamba fat la te ku sëñ Bamba fat nag doo fa naan bis bu weeru feeñe rek bu dellu see ci lay doon ñëwee ba héliport ba fi ni wax kër Ablaye Wade gi foo tol rek da nga sonn waar yi ñaan nag képp ku fa teew yàlla na la Serigne Touba fay ci barke Maam Rijaal Seck wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh